asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 9 septembre ñëw ak ci yëglekaay suñu lamb la xëy tey doore ko mu mel ni ki yëglekaay bi nga xam ne moom nii nag moom moo di Balla Diouf bu ñuy wax moom mi nga xam ne moom mooy Cœur de Lion ba ngeen xam ma nekk fa nga xam ne mooy ca Parcelles wala ca Yoff Balla nag moom la mu xëy di wax ministre Matar Ba daal la xëy di ko dànkaafu nee na moom Balla Diouf waxul ci kii jël place Alioune Sarr ak yu mel noonu moom la muy wax Matar Ba lay wax waxal moom lay xamal ne daal nañu dimbali ba ngir yàlla bi yoon moom bu mu fi jéem a reconduire Alioune Sarr maanaam daal di ko fi tegaat Balla daal jàpp na ne dem daal la war a def moom Balla Diouf gis-gis boobu la am tey ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb yemu ca am na keneen koo xam ne Balla gis na ne daal CNG bi nga xam ne moo yore làmb ji pour mu jiite ko lu war a mën a nekk la ndax xam-xamam muy ki nga xam ne moom moo di professeur Djibril Seck ba des moom war a xam ne moo di mandaam CNG bi nga xam ne moo yore làmb ji mandat ñu di ko limité maanaam daal utal ko ab yemukaay loolu moo la da boon fi mu nekk ni moom jar na lool ndax koy dagaan ngir yore ko bëri nañu bu fekkee am na ñoo xam ne dañuy génn ne nañ leen ko jox ñu yor ko ña ca des di ko wutal ku koy yor kii moom daa génne moom mën na koo yor nañ ko ko jox mu yor ko muy Ibrahima Fall ñu gën koo xam ci nas borom bu dëkk Géejawaay di ki nga xam ne mooy agent wu guy gi nas daal moom photo yi Alioune Sarr rek la teg ay bëtam yemu ca ne na moom daal am na ay ambition ak ay projet yoo xam ne daal fi mu nekk nii daal pour mbirum làmb ji ngir buñ ko ko joxee bu dee mataar ba wóolu na ko daal ba jox ko mbir ya dina ko doxal nas moom lii daal fi mu nekk nii moom la xëy wax ne na daal làmb ji fi mu nekk nii moo bëgg lu bees teq-teq loo xam ne ay xale yu ndaw yu ñëw ñu jox leen ko ñu doxal ko loolu mooy waxe ki nga xam ne moo di nas ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb beneen coow boo xam ne ni fi mu nekk nii ubbeeku na te ba tey wax ja di gën a yokk muy diggante Gris Bordeaux ak Gaston Mbengue mel ni ki ginnaaw giri dafa génnoon daal di xam ne na daal nañ ko joxoon xaalis bi noonu la koy joxe Gaston daal xëy na di ko teg pression ci yëglekaay ba la ma jox ma ko boo fekkente ne di bëgg ngaa bëre nga jox ma ko bu fekkee bëggoo bëre nga jël sa nga jox ma sama xaalis bu dee pare nga pour bëre nga wax loolu mooy fi mu nekk nii daal coow la mel ni kon foofa coow la mu nga fa ne gadd xam ne nii moom xëy na di wax ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb muy jamaïcain Mohamed Gueye ñëw naan ko Madi Gueye alias jamaïcain noonu lañ ko yëglikaay bi xëy waxe jam nag jàpp na ne daal mbirum làmb ji moom am na ci ñoo xam ne nii daal jàpp na ne mbirum coxor mu ngi ci ñoom ña ca des nag yemuñu ci ak coxor dañ caa boole sax di def ay yëfu ndaw ruudu maanaam di jaar ca suuf di jéem a yàq sa ay yëf di la wax yoo xam ne yu ñu gëm la ak ya ñu gëmul loolu la jamay kee xëy tay wax yemu ca photo yu Alioune ba wax na ca nee na moom ba mu yore seen moom Alioune Sarr nee na man booba judduwuma nee na man tey maay wax naan na dem wala na toog jamay kee la gis yemu ca mbirum làmb ja tamit ak lam daan daj ci ko doon jàngal alxuraan ndax lu ne ak fa mu jaar ba daw jóge daara ji ñëw Dakar mu mel ni jamay kee tey seq nag Abdoulaye Diagne waxtaan bu yaatoo yaatu ci yëglikaay ba nga xam ne moo di sunu làmb ñeneen ñoo xam ne nii moom yëglikaay bi ñëw na ci seenu bilan muy waa écrit ba nga xam ne mooy Cees mbooloo ba nekk fa nga xam ne mooy ca Cees ti mu doon te jiite ko mel ni ki nag ñoom six victoire daal def nañ ko ak lu jëm ci benn defet lañ jot a am mel ni kon loolu la yëglikaay bi xëy ñëw tey mel ni leader ba nag di Modou Anta moom daa perte la xam ne moo di ay vitesse am maanaam dal xel yam doon daw daa bu baax a baax moom mu ngay assuré yëglekaay baa xëy ñëw wax nu ko soxar kale itam daa mel ni moom itam boo bëggee dëgg-dëgg avenir la fa nga xam ne moo di ca Thiès na koy tamit yëglekaay bi ñëw na ci moom ak na muy doxale Zal Mbaye ma leen na ne bilan ba même bu a doy waar moo di ba lay bu nu continuer dañ fay jógee dem ca Leewtoo TV foofu moom yaawu jaal moo fa nekk di défendre ka nga xam ne moo di Aline Sarr jàpp na ne Tyson tamit warta mën a jiite lamb moom yaawu jaal yemu ca sax ne na Tyson boobu boobu ba tey mu ci làmb kenn gisu ko ci lu ñàkk fari diggu si ko ci te yaaw ne na kon ñoo bokk pikin jërul mu naan day jiite ndax bu ëllëgee ñu koy wax loo xam ne du ko neex wala nangam ak sangam yaaw booba gis-gis la am ba tey bu ñu continuer ca 2STV wala ca Bantamba TV boog wala li am res daal mooy ca BM TV Gris Bordeaux génn na fa dal di wax lu leer nañ ci diggante mag ka nga xam ne moo di Gaston Gris daal wax na fa lu yaatoo yaatu ne na ñuy wax ci diggante mag Tafa Gueye Gris ñooñu la na ñooñu ay saytaane lañu ndax jàpp na ne moom mooy Tafa Gueye Tafa Gueye ay moom du dugg ci lu Tafa Moustapha Guèye yëgul yemu ca diggante ma Gaston tamit ñëw na ca jàpp na ne Gaston ku ne la xulóol ne daal bàyyiwu fi kenn Gris Bordeaux wax de du samay wax ne na kenn la xulóolul mooy yàlla mi nga xam ne tegu ko ay bët waaye keneen ku mu doon Gaston Mbengue defante nag yow ba mu saf sap Gris Bordeaux loolu la wax ne na mbirum combat itam maag moom séqatuñ ko Gris ne abaana jeex na ñu ne ko yaag Balla Gaye kon jeex na Gris ne waxuma loolu de Balla Gaye de damay bëri ba mu saf ci beneen promoteur lay doon waaye moom du moo wax loola fa nga xam ne mooy ca 2S ak ca BMTV loolu la ñu yëgle kaay yi xëy tey wax nu ko bu nu continuer jóge fa dem record record ba tey ñu ngi fay fekk nga xam ne moo di Gris Bordeaux abu ndur benn jàng di jàpp daal Gris Bordeaux démarche bi mu yore nii bu contradictoire bi maanaam wute gi mu wute moo jaaxal abu la ñu record tey ñëw wax nu ko keneen koo xam ne nii moom ke mu xëy di dànkaafu moom moo di gis ki nga xam ne moom moo di Palla Diop ke muy dànkaafu nag du kenn ku dul ki nga xam ne moo di gargade moom lay xamal ne ko daal li am ba des bu fekkente ne maam Lamine moom mënoo koo daan booye boo nga dem ci ambassade Donald Trump bële bu États-Unis ba ñaan fa visa dugg États-Unis loolu mooy wax ji loolu la Palla Diop xëy tey gis leneen loo xam ne nii wala keneen koo xam ne nii moom mook maama Lamine ñoo bokk écrit muy pakala bu lan saar pakala moom la mu jot a def len ca la yëglikaay bi ñëw pakala siñor daal six drapeau la jot a gagné un million trois cent trente mille francs ak fukki nag ak ñeent moo tax nag ñëw na ci final yi nga xam ne neex na ko lool rawatina diggante ma ka nga xam ne moom moo di Sélémélé moom Pakala Siñoor loolu la xëy tey di ko wax fa nga xam ne moom moo di ca record yàgg maar salaamaaleykum mbokki suivre Leewtoo TV ñi leen nuyu baax di leen ziar di leen jaajëfal comme ni ñu koy defee chaque jour rek dañuy ànd ak yéen ci li nga xam ne mooy revue de l'arène bi ginnaaw bi nga xam ne Babacar eh, defal na leen revue de presse li gën a fës ci yéen kaay ci wàllu lamb ñu ñëw moom tey ci jàngat bi Babacar nuyu naa la. fay naa la Aïssatou Faye. chéri Tane maa ngi sant yàlla bu baax a baax loolu la yàlla dogal maa ngi lay bëgg bu baax a baax ma monsieur madame Niang. waaw Babacar ñu dugg tey si waxtaan bi suñu làmb tey daal di xaaj xaaj li nga xam ne nii mooy euh, une bi andil ñu Gaston Mbengue mu ñëw wax euh, Gris Bordeaux ba tey nee nag fu mu toll nii na delloo xaalis wala mu bëre. waaw mu mel ni foofu moom li comme li ñu wax boobu ba tey mu ngi mel ni tuleeg màlle mën a nekk ah delloo xaalis bi wala bëre am wala ñu xool nu ñuy régler rek mais la ma ci doon wax laa ciy wax rek lu ci mënta xew daal ñoom ñaar ñëpp ku ci ne sa la nga nekk di ca yëngatu kilifa nga ca responsable nga ca kon defe naa daal ay nit nag bu tolloo foofu bu ñuy déggoo déggoo bu ñu dul déggoo itam mais lépp ñu teg ko ci loo xam ne rek ñaaw du ci am waxante lu dépassé du ci am quoi man foofu laay toll quoi loolu laay wax ci mhm. Mhm. loolu dem fee ci sunu lamb ba tey ak euh, Balla Balla Diouf Balla Diouf nag euh, nee na Matar Ba amul droit reconduire ki nga xam ne nii mooy Alioune Sarr. waaw amul droit reconduire Alioune Sarr ah waaw loolu gis-gisam la <laughs> waaye nag li am solo daal mooy Matar Ba comme ne nañ tey moom mooy nommé euh, kiy jiite lamb ji. par mhm. arrêté. defe naa foofu nag su fa mbir toll ñu jox ko loolu su keroogee moom mën naa nominer kii wala mënta nominer kii moom ah loola moom dama naan wax ko dina xaw a jafe parce que nag moom la ñu jox boobu yoon wala boobu pouvoir mm-hmm. yaa ngi dégg waaye nag li am solo daal mooy que ni yaakaaruma ne ci sama xalaatu bopp foogu ma ne ci prochaine kii bi ñu nii pour man ëw yàqin wala ma am yaakaar ka ni Matar Ba dina reconduire Alioune yaakaaruma ko waaye nag it li tax yaakaaruma ko mooy yaakaar naa a dem ba tey mu nekk mhm. foog ne mooy am ba ba may gis contraire bi mhm. waaye nag ndax moom am na droit reconduire ko wala amul droit bi dama naan loolu moom yoon ko ko jox mooy seet waaw comme yoon ko ko jox nag mooy seet ndax day reconduire wala keneen lay indi mhm. waaye xam naa nag li gënal ñi li leen gënal mooy ñu indi beneen équipe bu bees quoi. Mhm. ba tey euh, Balla Diouf euh, ñi ngi ñëw tamit ci ki nga xam ne ni moom la yaakaar ni war na mun a yor euh, li nga xam ne mooy CNG bi muy professeur Djibril Seck moom nag xelam ci moom la dem mais yamu ci ba tey Babacar nee na nag na ñu li nga xam ne mooy mandat CNG bi. waaw loolu mu wax it ba gis la xalaat la parce que moom xëy na xam ba mu xam professeur Djibril Seck ak moom. ba mhm. jàpp ne am na capacité wu yore làmb doxal ko ni ko Sénégalais yi bëggee. Mhm. defe naa xam naa ne moo tax mu wax loolu yaa ngi dégg kon defe naa loolu moo lay wan ne rek ku ci

ko comme agent guy gi moom nag euh, signalé na wax na ne ay ambition la am ci làmb ji féete yu Alioune bi intéressé na ko Babacar. waaw ba tey de sénégalais la de ay sëte fii la dëkk ci réew mi <laughs> juddoo Géejawaay di doomu Sénégal. Mhm. defe naa ko ni tam te ci bokk ci acteuru làmb yi. Mhm. ndax ku ne xam na nas tey ci làmb. Mhm. par rapport ak digganteem ak guy gi bokk na tey ci ñi encadré guy gi ba guy ci niveau bi mu nekk. kon defe naa ne bu ko neexee am na droit ne moom dafa bëgg a jiite nañ ko jox pour féete yu Alioune Sarr ba waaye nag bëgg naa wala nañ ma jox est-ce que tekki na man nga foofu la mbir yi nekk foofu la ñuy taxaw man daal xam naa ne bëgg wax du ma tax a wax bëgg laaj kese duma ma tax a laaj damay wóor ci man ka am na ay capacité yu yore mm-hmm. bu may laaj ma door laaj xëy na nas nag am nay capacité ndax moom mi wax moo ma gën a xam boppam boppam <laughs> yaa ngi dégg kon defe naa loolu moom nañ ko bàyyeek waa làmb ji waaye li ci am solo daal mooy que ni nañ leen fàttali que ni du ay vote rek du vote waaw waaw waaw <laughs> ministre bee <laughs> voilà. ñu dem euh, ci ki nga xam ne nekk euh, mooy jamaïcain jamaïcain nag euh, ñëw ak waxtaan bu yaatu ci suñu lamb ñëw nag ci jafe-jafe yi nga xam ne am na ci lamb ji nee na am na jalousie am na ay coups mais bon moom mi ngi fexe ba génn ci daal. waaw àddina dama naan àddina ci boppam moo am jalousie am kuuba mhm. loolu moom moo àddina an ba yàlla tëggee nit ñi tëggee àddina bi wàcce ñu fi ci la loolu am. parce que lii indi si ak Cuba euh, loolu ci nit lay maanaam ci ñu doomu yi lay ne mhm. Jamaïcain dafa nekk jeune boo xam ne dafa dugg si ci làmb bi mu ñëwee nekk ci comme supporter nekk ci comme amateur ñëpp xam ko mu ñëw nekkaat ci tey comme promoteur yàlla dimbali ko mu commencé di def ay avancé ñu ko ñaanal yàlla mu gën a continuer mbir nag boo ci nekkee di ci exister mhm. bul xalaat ne ñëpp dañ naan waaw ci li ngay def loolu amul lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amul beneen doomu jullit bu koy xaar ci yow bul sonal sa bopp képp ku mu mën a doon bul xalaat loolu loo yëngatu lu ne du sax làmb àddina laa la wax moo tëddee noonu ay sa fay yaa ngi dégg maanaam foo dem gis fa ñoo xam ne dañ lay jéem a yàqal ci suuf te duñ la ko wan ñii di la dóor ay kuba ñii di la mooy loolu loolu mooy àddina mais nag li ci am solo mooy que ni lépp lu mu mënte doon rek bàyyee ko yàlla yàlla moom lépp dara ump ko lu waaye def ànd ak ndimbal suñu mm-hmm. yow la nga ne gëm ko te muy dëgg ci rek te lépp looy defit nga teg ko ci siraatal mustaqim bañ a tooñ bañ a jaxase ay nit bañ a wor bañ a nekk tamit euh, nit nit nit buy jaxase daal nga jéem a nekk nit rek te yàlla rek tax teg say mbir ci yoon la ca des nag nga bàyyi suñu borom. waaw garañ ba tey ñu dem si waa cees mbooloo suñu la am tey si ñoom la xëy def seen bilan ñoom nag euh, sept combats lañ am. six victoires ak benn défaite waa Kër Modou Anta waaw mu mel ni loolu résultat la boo xam ne xëy na combat yi bëriwul mais résultat bi. ci côté victoire baax na parce que mm-hmm. yaakaar naa ne itam Thiès mbooloo ku ne xam na ne écrit la boo xam ne tey marqué nañ seen empreinte ci làmb ji donte nekkuñu région Dakar ñu ñu ngi def ay progrès. Mm-hmm. ndax Modou Anta euh, laay goote am di nogoy ñoom soxor kele ñoom ñu fa lañ teg ñoom ñëpp mm-hmm. ay mbër waada lañu kon defe naa Euh, Gaston Mbengue ci delloo avance ak yooyu abu neen nag euh, ni gi di doxalee dafa contradictoire parce que nee na tubaab nee na kii pay commande maanaam kuy fay sa xaalis daal yaay commandé léegi nag giri day delloo rek wala ñu jàpp ni mu ngi ci suuf contrat wu Balla euh, Gaston Mbengue ba léegi waaw wax contradictoire mooy wax ju tolloowul quoi wala wax lii waaw wax lii wax lii wax la waaw loolu moom ah mooy loo xam ne nii defe naa itam su dee am na warul mën a dem na parce que comme li may wax rek giri moom bu ko jox xaaj ah moom bu jàppee nañ ko ko joxoon noonu la koy dellu ah loolu itam dama naan man moom boo ma joxee man Babacar ah, nga jox ma yaa xam noo ma joxe ba mu mat la ma la ma la doon laaj nga jox ma déggootuñ ma war la ko delloo non du man laa wax de fekk mhm. la ma la nga moom laa lay jox yow nang ma joxe woon yow la mais man ni ma lay joxe naa fexe mu tege ci aw yoon parce que Aïssa damay wax ka chaque fois kani gis nga man su ma amee fulla bu ni ñëw yor sama sama sama sama lu normal bu bëgg la koo wàll wala loo xam ne tegul ci aw yoon yow amal fulla bu toll ne yow wàll ma lu normal li ne ci yow quoi mm-hmm. foofu lañ toll quoi pour man waaw Babacar comme ni nga koy waxee chaque jour rek euh, nañ ñaan yàlla rek euh, coow li mujj fu neex mu daal di jeex ñu daal di bëri combat parce que boo seetee comme ni ko Abou waxee tamit euh, waa kër Balla Gaye nee nañ jox nañ seen kàddu Gaston mañ te jàpp nañ dañu amal combat Gaston Mbengue kon jéem a jàpp ni waxtaan moo fa gën a yomb te ngir itam bëgg na bëreeg bàll te lu ma xam ne bëreeg bëreeg bàll laa ko te wax naag nit ba ñu tënk xëy na ay mal entendu am na ah, ay sorti am kii wax fi kii wax ah, fee ah. te yooyu yëpp li may wax rek du ko du ko jar quoi du ko jar er, wax li yooyu pour man c'est inutile quoi ñooy laxasoo ko effectivement loolu am sax ay waaw olof waaw dafa jël dégg nag parce que <laughs> fay nga sant mais sénégalais bu naan déggul olof man daf may xaw di yëm des fois quoi waaw <laughs> kay ñu dem si ci Balla Diop moom nag mu ñëw ci combat Garga 2 ak Reug Reug nee na nag euh, combat boobu moom bu ko Garga 2 perte na daal limité li nga xam ne mooy visa rek te jéem a moodu moodu ji foofu ca États-Unis ah? Ah. waaw ah waaw Balla Diop nee na bu ko perte na jéem a moodu moodu ji ah. mais man du ma gisee noonu ah mhm. parce que li tax du ma gisee noonu mooy Mama Lamine xale la boo xam ne am na ambition te mu ngi wane boppam boobu tey mhm. li tax mu jël Garga 2 pour daan koo tax kon su ko daanee pour man du ontu ci Garga 2 ba tax mu war a man a bàyyi lam di muudu muudu ji dañ naan kay na jël ay précaution xam ne am na adversaire mhm. et puis tamit ñu bañ a xeeb maama bu ñu ko xeeb yaag d'accord Maama Lamine mbër la te gëm na li muy def te xale la Garga nag ndax mën naa bëri wala mënta bëri loolu deetee si ko werante ndax ku ne gis na façon bëri bi muy bëri pour man gisuma tey ci làmb mbër mu ko dàq bëri mhm. mën nga ko ëpp nag daraja ci làmb waaye dàq bëri Garga du yomb waaye nag ñaari adversaire la xam ne daal ku ne mën nga daan sa morom waaye kenn ki daan kenn ki ca wala keneen ki daan ke ca des moom du tax ma ne kenn <laughs> <laughs> jour andil ñu benn mbër te nag mu ñëw ci Pakala Junior bi nekk fa fële ca Lansar moom nag Babacar dem na 6 gagné na 6 final am 1 million 330 mille francs ak 14 nag.

nañu gën a dimbali promoteur simple bi parce que ñu ngi liggéey lu am am solo quoi mm-hmm. waaw Babacar ba tey ak Pakala Junior nag ñëw na ci li nga xam ne moo ko gën a marqué ci saison bi ak expliquer lu tax euh, bilan moom demee ni ni parce que nee na bu compétiroon lu ëpp 2 mois dina demee neneen nu dul nii parce que 2 mois rek le compétir daal ci am 1 million nee na su compétiroon dina gën neex ni tamit li ko gën a neex tam weer bokk na ci ñaari fan yi mu tegle daan ki nga xam ne mooy Sélé waaw loolu moom defe naa ne mooy li ma la wax sànq rek bu continué woon xam naa dina gën a neex ni ndax li olof naan xalam demoon na bay neex buum ya dagg moo see am yàlla ñëw corona ah, yi moom dañuy daanante rek mm-hmm. dañuy daanante kii day daan fii tey suba ngeen daje fekkee daan fële kon di ko félicité rek encore une fois bu si ñoom combat boobu dañuy jaayale ki nga xam ne mooy euh, Khalifa Niang mm-hmm. nekk président écurie Taïshinga moom mi ñàkk waajuram bu jigéen démb lañ ko denc fële ca Pikine ñu koy ñaanal la yàlla xare ko ajana te suuf oyof ci kaw amin Aïssa Faye yaay loolu ñu ngi koy ñaanal bépp mbindaafon bu tëdd ci suuf rawatina Khalifa Niang boobu comme ni ñu ko waxee rek ñaanal yàlla waajuram boobu yàlla na ko yàlla xare aljana barke yonent bi sallallahu wa sallam waaye tamit di wax Ndeye Coumba Fall happy birthday a

ñoom as xam nga gars yi nekk Petersen yëpp rek su ma leen limbee danaa juum quoi mi nuyu naa ñëpp da nga dul matal loolu la Père Max Mbargane di wax <laughs> kon yàlla na jàmm yàgg Sénégal barke balaa ñu tëj tamit feti may wax euh, joyeux anniversaire Ndeye Coumba sama mag jooju nga xam ne mhm. baax na am na yërmande mhm. euh, xol bi dara dara dara nekk ci jàppalul kenn dara di ko ñaanal gudd fan comme ni nga ko waxee di ko ñaanal wér gu yaram parce que jamono ji yaram bi xaw na sutante tuuti ñu koy ñaanal wér gu bëree bëri di ko ñaanal mu fekkee njëriñ njaboot bi bu dund ba Mouhamed di ko teral andil ko soxnaam ah, gis ay sëtam lépp euh, yàlla ànd ak wér incha di wax tamit euh, joyeux anniversaire ki nga xam ne mooy yaayu Aida Aida suñu collègue Aida Diouf yaayam teel anniversaire am ñu koy wax euh, maman joyeux anniversaire ñaanal gudd fan ak wér dund ba tey jii fekkee njëriñu Aida fekkee njëriñu ay doomu Aida incha allah te mu ànd ak wér bu baax. amiin Aïssa yàlla na ko yàlla def di wax kon mère boobu happy birthday to yaay Aïssa Diouf ah. Mm-hmm. Aïssa taal bi sëñ kër Si kon sa yaay boobu ko yàlla defal fan defal fan bu defal la wér yaram di ñaan Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm jib tam maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu sama waa dëkk encore une fois waa ak yaay yëpp yëpp maa ngi leen di ñaanal jàmm ak fu ci waay mën a nekk rek di ko ñaanal àddina bi yëpp ay safay ba